dalee nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien wal enquête walfajri yéenekaay yépp xëy daal di ñu yóbbu fi nga xam ne mooy ca CAN 2019 bi nga xam ne jamono ji moom mooy xew ca diiwaanu Égypte yéenekaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu Sénégal nag ni ki démb daan nay gagné Kenya ñetti bal ci dara yéenekaay gii di l'observateur mu ñuy xamal lan ñu en tout cas sunu gaynde yi bay boo ñu reer reegu ndaw ndax nag maanaam gagné nañ waaye yooyu ñu kenn walfajri yéenekaay mu xamal ñu Sénégal nag daan nay dem ca huitième de finale ya enquête yéen a kaay mu ñu xamal lan ñu huitième de finale Sénégal Ouganda lay dajeel ajuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal la laas yéen a mu ñuy xamalaan lan ñu enfin sunu gaynde yi daat nañu yeew yéen a kaay gii du source a mu ñuy xamalaan ñu Sénégal gagné na nag ñi nga xam na ñooy waa Kenya ñetti bal ci dara waaye nag ponum pire la pon dàq nag dàq na pon yéen a kaay gii Dakar Times mu ñuy xamal ñu nag en tout cas li am ba des sunu gaynde yi nag li des ci seen kanam moo gën a metti yéen kaay gi ñu fekk fa Idrissa Gana Gueye la mu xamle nee na nag jamono ji amatul benn calcul boo xam ne war nañu ko nag daal di def Vox Populi mu ñu xamal naan ñu Sadio Mané ni ki dem nag daal nay am change ginnaw bi mu ratee penalty bi nag Sénégal yu bari mujj nañu kaa jëppi dem ba mu yàgg nag ñu daal di koy bëggaat ci biir match bi ginnaaw ñaari bi ya nga xamante ni daal na koy dugal yéen kaay gi di Les Échos mu ñu xamal ñu nag ni ki démb ginnaaw match bi doxoon diggante Sénégal ak Kenya bi match bi jeexee ki nag daat nay dal ci kaw ñi nga xam ne ñooy journaliste yi ndax nag nee na leen Sénégal bi mu fubal ak Algérie ginnaaw bi ñu Algérie gagné dégg nañ lépp li nga xamante ni wax ngeen ko yéen taskatu xabaar yi te nag da ngeen a war a bàyyi li nga xam ne maanaam mooy kàcci bàyyi wax li si ginnaaw dëgg l'observateur ak réew mi quotidien mu xëy nag yóbbu ñu ci élection locale yi nga xam ne moom lañ daal di la jàpp nañ ko benn fànn ci weeru décembre journal bi mu ñu xamal ni ki démb am na am ndaje moo xam ne Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur ak parti politique yi amaloon nañ ko ngir waxtaane lépp loo xamante ni jëm na ci élection locale yi ak caution bi am na ñoo xam ne wax nañ cent mille francs am ñoo xam ne nee nañu trente millions am sax ñenn ñoo xam ne dem nañ bay wax cent millions ndax nee nañu élection locale yi waruñu ko caaxaane te nag bu ñu ko yombalee nag kenn ku nekk Samba Sugur Gay ku jóg rek ne dafa bëgg nekk maire ma ngi ci yéen a kaay gii di las élection locale yi journal bi mu ñu xamal ñu nag ñi nga xam ne ñooy waa PDS ñoom nag daan nañuy teg seen i condition nee nañu bëgg ñu benn yoon ñu dàq li nga xam ne mooy élection yi ki nga xam ne mooy Aly Ngouille Ndiaye na na mu sa yebbu sa ku sa ba max nga jël ci yéen gi moom Aly Ngouille Ndiaye nee na d'accord na ak Abdoulaye Wade ñu bañ a dàq li nga xam ne mooy élection locale yi ba tey ci biir journal bi ñi nga xam ne ñooy waa parti démocratique sénégalais ñoom nag nee nañu dëkk bi jamono ji ci ak tumuranke gu metti la jëm dundinu askan wi dina gën di yokk ba tey ci biir yéen gi ñu fekk fa am sodo sow Sidibé moom nag la mu xam xamle ci les échos mooy nag élection locale yi ñoo ngi si jëm waaye nag ci organisation bu bon soo moytuwule maanaam nag si lañ koy amal nag téyefoo mu ñu xamal laan ñu nag njiit réew mi di Macky Sall ma ngi waaj ngir dem fi nga xam ne maanaam mooy Touba waaye nag diggante Macky Sall ak Touba war nañu kaa lijjanti ndax askan bi nga xam ne ñoo fa dëkk ñoom nag seen xool yi dafa mel ni defuñu si Macky Sall Macky Sall moom tim mel ni nag lu commencé di fayanto ak ñoom yéen kaay gii di enquête mu ñu xamal laan ñu bac général ni ki démb la ñu ko commencé waaye nag amul benn faay boo xamante ni nemmeeku nañ ko si maanaam lépp jaaragun na si yoon good fine laas yéen kaay mu ñu xamal laan ñu candidat yi nga xamante ni ñoo nekk ci bac général bi bu ñuy dem sa toile de sax maanaam nag dañu leen di gunge di leen tere lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum téléphone ak yu si aju yéen kaay gii di source ak l'observateur mu ñuy xam laañu nag bi ñu ko xayma lu toll ci mille trente six kilos ci drogue la ñu jàpp fan yi ñu génn ci port bu Ndakaaru journal bi mu ñu xamal laañu ni ki démb ministre Abdoulaye Daouda Diallo demoon na port ba mu ko xayma koppar yi toll na ci cinquante milliards ci sunu koppara yéen kaay gii di l'observateur mu ñuy xamal laañu nak ndax ràññi mbir mu day waar nag moo am ci drogue bi nga xamante ni jàpp nañ ko ndax genn wàll ga dafa am ñoo xamante ni ñoo ko daal di sàcc ca port ba journal bi mu ñu xamalaan ñoom am na lu toll ci fukk ak juróom ci ay sénégalais yoo xamante ni jamono ji daal nañ leen di teg loxo enquête yéen a mu ñu xamalaan ñu a fukk ak juróom ci ay yu interpol ñoo ngi leen di xaar ci ndakaaru njaay kawlax jàpp nañ fa drogue jàpp nañ fa ay faux médicament yéen a kaay gi mu ñu xamalaan bi ñu ko xayma toll na ci 250 ci sunu koppara yéen a gi mu ñu xamal ñu en tout cas li am ba des jamono ji drogue bi ma ngi jaaba jonge ci biir réewum Sénégal